ngir gunge leen ci seen bëgg-bëgg digital store indil na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mu génne te xew ci jamono tablette Core T4 smartphone Core X4 ak téléphone flottant Shark X3 di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yi ñuy ànd ak yéen fu boole ci lu ñu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall di kër gi leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareyam ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñuy boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la corniche 33 823 77 87 Digital Store améliorez votre quotidien. sëriñ bi nee na mi ngi nuyu bokk taalibe yi fi daje yëpp ak bokk jullit yëpp ndax. ndax xew-xew bu metti bii fi xew ndax ku ne xam na ni Touba amuti usine wala bariwu fi métier commerce rek moo fi am rawatina fii ci marché Ocass nga xam ni mooy xol bi kon lu mel ni bu fi amee ñëpp ñoo ko yëg am na ci ñoo xam ne seen lépp yàqu na ci. seen lu bari yàqu na ci. am na ci ñoo xam ne seen lu bari yàqu na ci. kon mboolem ku ci yàqule rek. kon mboolem ku ci yàqule rek. ak ñi ci yàqule wut ñëpp ko yëg. ak ñi ci yàqule wut ñëpp ko yëg. ndax ku ci ne ay njaboot yu bari ñoo aju ci yow. te yaakaar rek ñoo moo leen fi indi. ci dëkk bi waaye nag yàlla. lépp lu mu def rek. lépp lu mu def rek. ki fi nekkal Serigne Touba waxee. ki fi nekkal Serigne Touba ni mu ko waxee rek. di Cheikh Mouhamadou Mountakha. ni nañ delloo lépp ci yàlla te xam ne yàlla mooy def mooy dindi te moom du def lu lu gën ndax wax na ci alxuraan eh, léeg-léeg ma def ci yéen dara léeg-léeg ma def ci yéen dara wasaa an takrahu sayan wasaa an takrahu sayan léeg-léeg nga bañ dara wa huwa xayrun lakum te fekk na moo gën ci yow wasaa an takrahu sayan wa yaj'al Allahu fiihi kasiiran fiihi xayran kasiiran kon nañ ko delloo ci loolu rek nañ ko delloo ci loolu rek te xam ni wa maa anfaqtum min shay'in fa huwa yuxlifuhu suñu borom day wax ci alxuraan lu ngeen def ci yàlla rek lu ngeen def ci yàlla rek dinaa fa wutal lu ko gën waaye nag ñaari itam ñaari yi itam waaye ñaare waaye ñaare itam doomu aadama fokk suñu borom tege am nattu ñaar rek la koy def jural. ñaar moo ko koy jural. lu newoon ci moom te yàlla di ko dindi. ci moom te yàlla di ko dindi. ak cër bu mu a ak cër bu mu war a am. kon nag lii metti na lool. kon nag lii metti na lool. waaye yàlla na yàlla ci yéen. waaye nag yàlla lu gën ci ñun. ku ci ñàkk itam. waaye ku ci ñàkk dara itam. yàlla na ko fa yàlla wutal lu ko gën. yàlla wutal ko gën. ci barkeb Serigne Touba. diis na lool nag. diis na lool it nag. ci rawatina ci Cheikh Mamadou Mountakha. ndax nee na ñëpp ak njabootam lañ. te xam nañ ni. ñi fi nekk ñëpp itam. luñ dundale seen njaboot. ci nangoo ñaq. ci nangoo ñaq. ak liggéey ak liggéey. ni ko lislaam santaane rek. ak lu ñu liggéey sëriñ Touba rek. loolu rek moo ñu fi bàyyi. waaye nag. waaye yàlla moom lu mu def nag. moo moo moo tax moo xam lu tax. te kenn du ko wax lu tax nga def ko. te ñu baax ñëpp. ku ci ne. ku ci ne. lu leen di bëgg bëgg. lu leen di bëgg bëgg. bala leen a joxub cër. bala leen ñoo joxub cër. dafa leen nattu ba noppi. kon nag lii. ku ci ñàkk ne rek. ku ci ñàkk ku ne na ko defum nattu. na ko defum nattu. kon nag ñu ngi leen di nuyu. ñu koy teg ñu teg loxo bi ci sëriñ Sidi mi nga xamante ni. moo nekk ci seen kanam. ak euh, sëriñ fal yow mi ak sëriñ Cheikh Jaxate ak sëñ Abdou Fatah Gaye ak ñi mu fi fekk ñëpp sëñ Mor Lo ñoom ak ak ñëpp ñi nga xam ne ñoom la fekk ak bokki taalibe yëpp bàyyiwut kenn di xam le kon sëriñ Alla Ñang moom itam wax nañ ko taxawaayam comme ñu yor nguur gi ñëwoon nañ fi war nañ fee ñëwaat suba ngir xool si mooy li mooy li xew ak lañ ca war a def ñoom muy seen warteef li ci des nag. li ci des nag. mooy diggante mbokk julit ak julit. mbokk julit ak julit. ak diggante taalibe ak morom. ak diggante taalibe ak morom ji. ci lu mel nii bu xawee. ci lu mel xawee. ñëpp war cee seen loxo. ñëpp war cee dugal seen loxo. ndax ku ci ne. ndax ku ci ne. ñi ñi xam ne am nañ ci lu leen diis. ndax ñi nga xam ne am nañ ci lu leen diis. bu ci des jàppee rek. ñi ci des jàppee rek. bu ci des jàppee bu ñëpp mu woyof ci ñëpp. kon xañ na lu diisoon ci ñun. kon xañ na lu diisoon ci ñun. mën nañ koo fàtte mën nañ ko daal di fàtte. loolu nag. ñëpp ci war a ànd. ñëpp ci war a ànd. bu ñu xoolee ba xam ni mu demee. bu ñu xoolee ba xam ni mu demee. ba xam li ñu war a def rek. ba xam li ñu war a def rek. luñ ci war a wax. luñ ci war a wax. ci bokk taalibe yëpp. ci ndigalul sëriñ bi. ci ndigalul sëriñ bi. ak luñ ci war a jëf. ak luñ ci war a jëf. ngir ànd koog yéen. ñëpp dañ ko def. dañ ko def te ànd koog taalibe yëpp. ak bopp jili yëpp. asalaamaaleykum wa rahmatulah. ñoo ngi fas yéene daal. ànd ak yéen lépp daal.